voilà yi nga xam ne yéen ñuy suivre seen euh, site préféré Sénégal 7 TV fu ngeen mën di nekk ci biir réew mi ak bitim réew rawatina waa diaspora ñu ngi leen nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant comme ni ñu koy faral di doxee rek saa su ne euh, lu soxal askanu Sénégal moo xam ñu jege wala ñu sori dañ ciy ànd ak yéen di leen jox li nga xam ne rek mooy actualité en temps réel. ci loolu tey déplacé wu nañu comme ni ñu ko defee ak euh, Modou Dia di adversaire ki ñu jàkkaar di caat. Euh, noonu la ñu def tamit déplacé wu ñëw ba fii si euh, grande Dakar fekk fi caat ak écurie boobu di école de lutte booy Bambara booloo ak euh, école de lutte bi nga xam ni mooy Doudou Bakassar ñu nekk ay ancien mbër yoo xamante ni ñëpp xam nañ leen si Sénégal ak ci Afrique ak ci àdduna bi yëpp sax ba tax na tey ñu fekk ci ki nga xam ni mooy caat nekk adversaire u Modou Dia ci combat bi nga xam ni war na dox digganteem ak moom ni ki le 13 avril prochain incha allah fële ci arène nationale ku si nekk nag sawet yaa ngi préparé di def li nga mën ngir yàlla may la ndam si bés boobu kon nag tungu ñu teew li ñuy nataal dañuy daa jox kàddu gi ki nga xam ne rek mooy caat mu nuyoog askanu Sénégal nuyoog ak làmb waaye nuyoog tamit supporters yi rawatina ñi nga xam ne ñooy fans yi kon caat ñu jox la kàddu gi nga nuyoog askan wi ñu dugg si yow si laaj ak yi. waaw asalaamaaleykum waa set Sénégal ñu ngi nuyu si yéen bu baax baax di ziar ñëpp di bëggee ñëpp avant tout damay nuyu sama mbokk séeréer yi nuno fole seeɗe me simna nun gonum fayi sima ngol mi cat on dokonnoɓe nun jarba num tan na simna nun a jajafala nun alaya nun nanum mbiu a joka nun a jal toala ko mbalo 13 avril ande ɗum fof mojja national geɗanuga geɗenen comme nu mbitani comme comme salana ñana bo yaale wa ceeni ndam wa buñ joge si loolu ñu ngi sant suñu supporter yëpp di sant ñëpp di sant waa écurie Boy Bambara ak waa écurie Doudou Baka Sarr di nuyu papa ko ñaanal fu mu tëdd yàlla na ko yàlla may wér ak tane di nuyu suñu yu ñoom Grand Mbaye Faye ñoom Pedda ñoom Zil xam ñoom Tafa Boy Bambara xam nga gaa a ak waa ñu nekk si équipe bi équipe Doudou Bakassar ak Boy boo ko gisee nag ñu boolu nag Boy Bambara ak Doudou Bakassar ñu nekkee ay mbër ñoo daan ànd boo nag dafa rafet mbër yi fa nekk ñëpp booloo nekk benn. Mhm. Euh, tey euh, laaj bi ma lay jëkk laaj rek euh, tey am na lu nekk sa kanam loxo xam ne ji yaakaar naa ni luñ la mën di wax fi mu toll nii si jamono yi boo tëddee ngay yeew ngay dox mu gisoo lenn lu dul combat bi dox sa diggante ak sa adversaire di Modou Dia naka nga comme euh, fas yéene euh, préparé loolu nga xam ne mooy combat bi. waaw combat bi ni ma koy préparé comme ni ma leen préparé rek combat yi rek ànd ak samay mbokk ànd ak samay mbokk ànd ak samay ak samay ànd bi jàmm ak samay supporters ak may jàppale si làmb ànd ñoom ba le jour yàlla may ñu dem waaw combat boo xam ne daf ñoo jaral lu mu jaral suñu adversaire jaral ñu ko lu ko raw ba mu des faat bakkanu doomu aadama waaw lépp lu ñuy munti def lépp luy may ndam daal nañ ko def xam ba yàlla ànd ak suñu yàlla may ñu dem yàlla moo mun kenn mënul waaye dañuy sàq suñu borom ñaan talal suñu loxo et ñu jullee ñu ngi talal suñu loxo di ko ñaan xam nga mu may ñu mu may ñu ndam jour bu jour ba le treize avril te loolu ñaan am nañ suñu jot parce que ñu ngi koy préparé suñu mbokk ba gars yi kenn bàyyi ku nekk mu ngi dugg fi nga war a dugg ku nekk yaa ngi indi sa xalaat ak sa idée pour lay may ndam parce que combat dafa nekk combat boo xam ne dafa war am fu mu ñu yóbbu quoi Modou Dia adversaire la rek sama sama adversaire la du ma wax xeeb sama naataangoo la sama morom la si làmb bon nag bu ñu bëree dañoo war a bëre waaye maa ngi ñaan yàlla may ma ndam si kawam. Hmm. Eh, ci loolu Thiat eh, est-ce que tey nii nii nii nii nii eh, mën nañu xam Thiat état de forme am parce que muy yow muy Modou Dia xaj na nit ñi dinañ leen gëj a gis mais ñàkkul yéen ngi dugg seen ruq di def seen yu sew maanaam seen i entraînement di respecter tamit li nga xam ni mooy seen vie euh, hygiène est-ce que tey mën nañu wax tuuti tuuti tuuti Thiat état de forme am fan la toll nii ci dëgg dëgg dëgg dëgg ci entraînement yi. waaw sant yàlla sant yàlla kaar macha allah sant yàlla parce que nit yu tàgg bu di tàgg boppam mais l'essentiel li ñu war a def suñu course ñu ngi koy def heure bu que ñoom ñoo ñoo ñu jox la ñuy may ndam waaw ñoom ñoo may ndam le reste dañuy ñoom mottali ko rek si digg géew bi le reste si digg géew bi si digg géew man lay doon sama diggante maag moo jot li fay des ñoo ñoo ñoo fay appliqué waaye lépp lu luy jëm si entraînement suñu course yi li ñuy digal loolu la ñuy def fu ñuy yem la ñuy yem li ñu def loolu la ñuy Euh, ci loolu aussi est-ce que man nañu xam caat euh, depuis ba mu toogee gëj nañ ko gis euh, ci grand combat yi gëj ko gis ci arène bi ci lan nga nekkoon. waaw maa ngi woon samay activité nekk samay lamb xam nga décoration benn nekk samay entraînement yàlla mayoo ma combat année passée sama diggante ak armée yàlla may ma si loolu yëpp gëm sa bopp ak ñax bañ a découragé météo na daal météo na météo mais dañuy teew dañuy jàpp fi ñuy jàpp rek gëm suñu bopp di liggéey laaqa suñu ruq di liggéey noonu lañ ko defee si combat bi tam dañuy laqati suñu ruq di liggéey ak suñu coach di nuyu waaru passage sama waa Saal di nuyu coach coach coach Papis ak coach Mamor ak ñoom Abdallah ñoom Tewo ñoom Mbaye ak Mami Dig Sarr Seri Dig Sarr maa ngi nuyu ñoom ñëpp di nuyu waa Saal bi. Mhm. Eh, ci loolu mën nañu xam Thiat eh, en dehors de lamb ndax am na benn profession boo xam ne mi ngi koy mi ngi siy jàpp. Eh, bien sûr en dehors de lamb maa ngi liggéey. en dehors de la maa ngi liggéey parce que làmb làmb bien sûr làmb moo tax ñu xam ñu bu ñu bu ñuy romb si mbedd bi ñu naan caat làmb moo tax mais bu dul loolu ñu ngi liggéey ñu ngi am suñu liggéey ñu ngi liggéey. comme lan la ban mi man maa ngi liggéey marché poisson su ma nekkul marché poisson su ma demee dëkk ba tam maa yëngatu si géej gi maa yëngatu si gaal gi parce que man 100 pour cent mool la parce que séeréer la te séeréer de nature moom affaire géej moo nekk kii am quoi mooy nekk cosaanam te loolu moo nekk suñu cosaan doole Mm-hmm. ñoom la ñuy wax les ñoominka quoi. waaw les ñoominka waaw yow xam nga waaw yéen ñoominka. waaw ñoom ñëpp ñëw jàpp si combat bi te soobee yàlla nañ di jàpp parce que ñun ñoom ñun lañ fi dese ñun lañ fi def muy man ak Siteu ak seeti jaar ñaa ak yeneen gars yi nekk suñu ginnaaw ñoom it kay ñun lañ des ñun lañ fi dese bon nag dafa jaar ñoom ñu jàppale te ñu ngi bu baax a baax a baax bu ñu jàppee seen bopp ñu jàppul seen bopp lañ wax ñu gën a jàpp ñu ñu sika maak nu noy nu noy defanu men to nu noy tam inoy defanu fop i mbaasoo len képp ñoom ñoom ka daal caate xooyo mo sik na combat i njee ndafit nun koy mhm. xam nga loolu euh, dañ ñoom ka buñ ko waxee rek xel yi dente jëm ci lébu te su mbokkam lébu nga jàkkaar lool ah, moo tax euh, képp kuy dem géej rek ci xeet xeet boobu nga bokk quoi hmm. parce que séeréer ak lébu ñu bokk maam voilà euh, ci loolu euh, est-ce que xam nga ni kii di sa adversaire nekkul ku ndaw hmm. ba tax na yaa ngi koy bàyyi xel bu baax a baax hmm. waaw sama adversaire adversaire la parce que moo li ma la rek làmb kenn du xeeb sa adversaire mbër kenn du ko moo jël ma ko doon xeeb tey du ma ko jël du ma ko ko moo tax ma yeew fajar di dem di entraîné ñëw di bi di di rey sama bopp ko moo tax parce que dama ko jox cër adversaire bu ma jox cër la dafa def ay problème si làmb mu ñëw sëgg ñu war a bëre waaw maa ngi yàlla nag yàlla may ma ndam. Eh, ci loolu mën nañu xam euh, bi nga duggee ci làmb ji mën nañu wax ban année nga dugg ci làmb ji wala comme séeréer yu bari ñu ngi koy def dañuy judd rek nekk xale di foowe làmb. waaw daanaka man yàlla daf jàppal parce que dama dama làmb dama doon dondu làmb si si ndey ak si baay parce que sama papa da doon bëre sama nijaay itam dañoo ay mbëre lañ ay champion lañ si dëkk ba. mais dang dama doon jàng di fondu di bëri si ay mbuusu meew yooyu noonu ba yàlla ñëw tudd ma egsi ma egsi tey waaw loolu te moo gën a tax ma bàyyi jàng. Hmm. kañ nga dugg ci lamb kañ nga ko commencé pratiquer. waaw bi ma duggee carrément ci lamb bëre dóor wala simple. non bëre waaw simple ma commencé dugg parce que mënatuma la ban année la ko parce que dama doon fondu si mbapat yi suñu dëkk di teg ay mbapat di teg ay saaku ceeb xam ay tonu ciment ma si jël suñu ne. demoon naa ba suñu dëkk drapeau man drapeau moom moo si nekk rek man maay doon top bi maay doon chef bi si drapeau bi mm, ba yàlla indi ma fi fin ma ñëw nekk fii di pratiquer bëre si galaa bu boobu maay nekk tout tànk ba ma siy dugg gars di wax lu nekk naan di ngaa teel a dugg di ngaa teel a dugg ma gëm sama bopp la dugg ba yàlla egsi ma egsi fii tey. la woon quoi. waaw euh, bi bëre dóor bi nga ko commencé. waaw bëre dóor bi maa laa ko commencé. waaw fin 2008 quoi. premier combat yaa ngi koy fàttali. waaw maa ngi koy fàttali maa ngi doomu jalaloon kaw la waaw tournaa loon sama premier combat may bëre koo xam ne moon na lu toll ni huit combat te amul défaite yàlla may ma victoire si kawam kaw la. loolu ngeen ko bëree ko euh, ci loolu depuis boobu mën nañu wax ñaati victoire nga am ak ñaati défaite. waaw man maay am neuf victoire am cinq defet mhm, euh, tey nii nii nii nii ak euh, enjeu bi nga xam ni am na ci saison surtout deux mille dix neuf deux mille bi. Euh, ñu gis euh, làmb ji ni mu nu tekkee ñii di wax euh, sponsor yi la ñii di wax nii mbër yi li ñuy laaj moo bari promoteurs yi ñu ngi leen koy jiñ daal ñu ngi koy jëñ mbër ñu ñi koy jër ñi ngi koy jëñ sponsor yi ni ni ni li ñuy fay amuñu promoteurs yi amuñu lu ñu fayee mbër yi ndaxte sponsor yi ñëwul yow loolu ban jàngat nga ci def. waaw loolu jàngat nga parce que boo xoolee boo xool làmb fu mu toll nii làmb gënoon dox année année année weesu si la làmb gënoon dox ko année yi bu ñu ni dëgg te tax yenn yi koy def yenn communication si làmb moo tax moo ko indi loolu yëpp mais làmb dafa toll boo xam ne mooy suñu sport national bon nag dañu ko yokk ci ram jox ko xam nga sponsor dañoo war a dañoo dellu si jàpp si làmb parce que sponsor bi ñu ngi gañ ñu ngi gañ à 100 pour cent bénéfice suñu biir dëkk waaw bon nag dañoo war a ñëw jàpp si làmb xam ma parce que làmb mooy suñu métier mooy suñu sport national ñu ñëw jàpp si bu baax a baax a baax waaw làmb nag mu ngi xaw a suuxee mais gëm naa si at ay at si kanam dina jogaat parce que am nañu arène nationale parce que xëy na arène bi mu nekk lu bees la bu demee ba yàgg si biir ba mu yàgg yàgg gars yi ko adopté waaw man daal loolu laa mën na si jàngat te gars yi di bàyyi di communiquer naan làmb dafa am violence làmb amul violence parce que boo xoolee boo xoolee ma moo jotee ay adversaire lañ bu ñu bëree tey du ñu doon ay ennemi ay adversaire la pour quelque temps du ñu ay ennemi moo may xaalis maa ko may xaalis euh, bu ñu bu ñu si yàlla may ndam da ndam yu dem fenn Sénégal lay des te te tese waa tasewaatee nañ saafu wante mel ni mosuñu bëri nekk ay doomu ndey supporter itam noonu même chose waaw moo tax làmb amul amul ñaan làmb fu mu nekkoon mu mu mu gën fa weesu gën fa teguwaat di gën a nekk au top Euh, loolu si la ñuy rebondir rek euh, ku si nekk muy yow muy Modou Dia muy sa morom keneen am nañu boot sa gannaaw muy sa staff muy fans yi muy tamit supporters yi tey euh, lu mel ni làmb ku ne xam na ni dañ ciy wax violence comme ni nga ko wax amul mais yow lan ngay dénk ñi nga xam ni ñoo supporters yi bu ñu yàlla yóbbu jàmm ci bés waa waaw li ñuy li ñuy dénk supporter muy sama supporter support supporter Modou Dia supporter bu leen mbër keneen ak keneen mbër yi nekk si làmb yëpp s supporter bu ñu mun ma leen mun di dénk mooy ñaari mbër yi ngeen di supporter ñaari mbër si digg géew bi lañ nekk bu ñu paree ay gaañ la ñu doon bu na jaru yéen ngeen di reyante seen biir bay gaañante xam nga ba gaañ naan làmb dafa am violence loolu jaru ko fi supporter a ñëw si làmb kii kii sol tiset tiset mojja ñu bëri ba pare ñu def fair play kii sol kii soloon tiset mojja bi jox ko tiset kii soloon tiset caar neex si làmb quoi waaw parce que loolu moo tax gaañ naan làmb man daal loolu laa am lu may ñaan supporter yi ñu ànd ak dal ak teey xam na xam ne ñaari mbëri ñooy saafante li ñu war a defante ñu ko defante si digg géew bi waaw bu jeexee yëg jeex na. Mhm. mais ci côté boobu côté sensibilisation bi toujours day des ci yéen ñi nga xam ni yéenay yéenay yéenay champion yi quoi est-ce que euh, du jar souvent comme ni ngeen def nii tey ci euh, euh, seen seen seen terrain bi ngeen entraîné nii ngeen woo fans yi woo Grand Dakar woo xaritu caat yëpp ñu daje fi ngeen teg benn sonorisation di leen sensibiliser avant combat bi même mu nekk genre. avant combat événementiel avant combat boo xam ne ji si ngay profité ni supporters yi maa ngi ñaan jour combat ba bu ñu fa eggee lii ak lii ak lii ak lii nii laa bëgg mu defee nii bu kenn laal kenn bu kenn def dara lu ñaaw. waaw loolu bien sûr loolu war na mun a nekk te day nekk te day am parce que lépp loo gis rek évolution la quoi ak lépp loo gis lépp lépp loo gis rek xalaat lay doon ak jàngat ak préparation comme xam nañ ko di ñun dañ si dañ ko waaj def suñu kéemtalaay kattan ñu ngi ko daan def sax di waxtaan ak suñu supporters di leen di ñaax waxtaan ak ñoom parce que làmb yi bëgg ñu si violence xam nga dem bëree ji si ak jàmm ak salaam parce que yenn moo tax waajur du ñoo bàyyi seen doom yi dem seetaan làmb da dañuy wax làmb wu làmb bi day moo tax ñuy bañ si côté ñu def attention bu a baax ñu yeen supporter ak ñun gën a waxtaan ak ñoom parce que ñoom ñoom la parce que supporter dafa xër bëgg ni dafa metti quoi yenn saa nga bëgg wax dara ba na sa wu rek yaakaar naa boo maîtriser wu rek lépp dina neex mooy li ñuy wax kontaan xol bu sedd yaram bu sedd mer maîtriser boo melee rek maîtriser ko quoi. Mhm. Eh, ci loolu euh, euh, dafa mel ni euh, li nga fi nga xam ni fi la làmb toll tey nii nii nii nii ak ku si nekk ci mbër yi yaa ngi def tout pour dem ci la cour des grands comme ni ñu koy waxee wala sax jël couronne bi muy le roi des arènes tey yow sa sa vision. lan la caat teg bëtam. waaw sama vision fi gars yëpp teg bëtam si làmb teg teg seen bët si làmb rek fi gars yëpp teg seen si làmb foofu la teg sama bët quoi ñu fi yàlla bàyyee foofu laa teg sama bët. waaw te il est temps ñaata la moom dañ ko soxla Grand Dakar Biscuiterie daa nañ ko xam ne dañ ko soxla am ay champion yu fi soxaku di génn bugul man di keneen sama ginnaaw champion yi nekk sama ginnaaw ay ñoom booy Dakar xam nga ñoom xam ne capable xam nga ñoom Saabala xam nga ñoom Yankaawo gars yi ñu ngi fi ñoom Badu xam nga ñëpp ngi fi daal ku lim da ngay juum mais champion yi ndaw ay ñoom bébé Julde gars yi nekk Grand Dakar ñëpp a ngi fi xam yee. Mhm. Eh, ci loolu euh, bu fekkoon ni tey da nga am message boo xam ne ji euh, da nga koy yeggee ñi nga xam ni. Euh, ñooy autorité yi jiital ci son excellence monsieur le président de la république ñu ngi lay seetaan euh, en tant que mbër ku ne xam na ni dëkk bi métti na jeunes yi euh, amuñu liggéey te da ngay gis comme yéen ñi nekk seen staff ak ñi nekk seen écrit ñeneen ak ñeneen dañu entraîné ba doy nu leen ne bu ñu xëyee amuñu lu ñu liggéey mën nañu def nag suñu noonu ndaxte làmb ji dañuy wax doxul combat yi amul loolu ban ban message ngay jox autorité yi. waaw message bi may jox autorité ñu gën a yaatal rek gën a jàppale réew mi. gën a am gën a ubbi seen bët di xool gën a ubbi seen xam nga a xool nekk seen ginnaaw xool seen encadrement bu baax baax parce que dëkk bi toll na foo xam dafa metti parce que lu mu noonu te loolu ñaanuñu ko yàlla te xaw gis nga li xew Sénégal fan yi rek diw diw rey nañ ko fee loolu dafa ñaaw waaw loolu nag ñu ñu si appel son excellence président de la République ñu appel bu baax a baax mu jàpp si xool nu mu gën a jàppalee jeunes yi bu baax a baax a baax parce que soxla nañ liggéey ba liggéey même bu fu ñu liggéey la ñamul mi ba ñu ñu liggéey xam nga fu ñu liggéey la ñamul mi ba ñu ñu liggéey quoi waaw. Euh, ci loolu rek xam naa lu ñu jot si des si waxtu bi bëreetul euh, tey nii nii nii tey bu fekkoon ni par exemple euh, ki nga xam ni mooy caat dem na ba dugg ci cour des grands ndax am nga yaakaar pour euh, jël li nga xam ne mooy roi des arènes. waaw bien sûr bien sûr ñi ñi ñi ñi yor roi roi des arènes ñu ma gënee dara gënuñu ma ñu yor roi ñu ma dara waaw ñu li ñuy ñaan yàlla yàlla may ñu egg foofu si kattanu yàlla la ñuy ñaan parce que ñun suñu vision loolu la te suñu fi ñu dëkk itam ku ñu xam fi ñu dëkk dëkk cosaan di dëkk làmb la yee surtout mooy Dionewar Île du Saloum mooy ñomin kay yee uh-huh. kon euh, li ñuy jeexale rek dafay jëm ci li nga xam ni mooy sa staff bi nii ñi nga xam ni euh, maanaam ñoo leen wër muy yow muy ma muy kaneen sa beneen mbër boo xam ne day nekk ci tête de file benn écrit mais yow lañ fekk fii yow la ñu am pour euh, jox la kàddu boobu. tey ndax ñoom ñii ñii ñii ñeen and di entraîner yéen ngi leen di sensibiliser ñuy bëgg ñuy bañ dugg ci naka su dul noonu. di def jël alal jàmbur wala ñuy agressé wala ñàkk pexe ba ñuy def loolu est-ce ngi leen di sensibiliser ci côté boobu. waaw chaque jour kay fii ku fi kenn amu fi mieux ku si nekk balaa kenn du si taxaw si taxawal noonu waaw amu si eh, bu ñu toogee dañuy waxtaan day ñaax boobu même da ngay dox si mbedd mi nii sa bane nga koy tooñ continuer nga koy tontu dem ñun loolu la ñuy wax carrément parce que

ak ilmaam bu Sëñ Saaliw xam nga di si woo ñu appee ndukumaan pee baarakan waa dibiteri Baye Mbaari bàyyi ma kenn képp ku jàppale caat caat mu ngi woo si kër ak Modou Xalaas Modou Xalaas bi nekk Kaolack day jàpp si combat bu baax a baax baax baax ak autorité yëpp ak sama nijaay nekk marché poisson surtout waa marché poisson waa marché poisson moom combat bi seen combat la waa marché poisson ak waa port yéen laa tuddee combat bi lépp loo si mun def leen parce que mosuma am combat ngeen seetaan ma si jàpp ba mu ma bëgg nag combat bi mu gën ngeen gën si fës ngeen jàpp si bu nekkee port Lamine Diasé denk naa la affaire bi yook seex denk naa grand Ibou Sané bu nekkee marché poison jigat jiital naa si mbay Kooba Sidi Ndiaye xam nga xam nga Siyaaka Père Tafa Ndiaye xam nga ak Père Talla xam nga di si jire ñi ak ñoom Bas waaw jiital naa leen si ñoom maa Mamoussa ñoom Yaaya ñëpp waaw ak waa frigo yëpp ñu nekk si conteneur yëpp marché poisson maa ngi di woo di directeur marché poisson bi nag mu ñëw jàpp si bu baax a baax a baax a baax